mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun ci Bambilor info xibaar yi dañu koy tàmbali ak lu soxal mbirum Assane Diouf mi nga xamante ni bi rek moo polluer atmosphère bu administration pénitentiaire bu Rebeuss ndaxte moom Assane Diouf moomule dañu ko teg loxo mu daal di amal ab grève de la faim ci Rebeuss boobule boobaak léegi tàmbali na ko ay bés a ngi nii nee na rek daanaka euh, du nangu benn yoon ab tentative de médiation di am ci grève xiifal googu nga xamante ni bi rek amal na ko te itam yokk na ci moom anniversaire am léegi du kenn ku dul état bu Sénégal am na sax neveu boo xamante ne bi rek ñëw na nekk itam bras droit am di Lamine Gueye Ndiaye nee na dafa doon amal ab visite foofu la semaine bi ñu weesu mu ngi nag dànkaafu ñi nga xamante ne bi rek ñooy état ak itam ñi ngànk boobu lee euh, prison ngir ñu daal di saytu bu baax a baax Assane Diouf moom la ndaxte ni ma ko fekkee jéggi na dayoo euh, itam ñu gis ni rek euh, moom Assane Diouf daanaka jot nañu daal di koy saytu bu baax a baax balaa muy faatu ci leneen ci xibaar yoo xamante bi rek jël nañu ko tey ji muy néewu kër bu Clore Pape Ibrahima Ndiaye moomule ñu daal di koy fekk ci biir néegam mu daal di ñàkk euh, bakkanam l'enquête bi daal naka li mu fësal rek mooy euh, moom Pape Ibrahima Ndiaye moomule euh, faatam boobule li ko waral mooy baisse de tension boo xamante ni bi rek dafa ànd ak arrêt cardiaque ba ñu sukkandikoo ci xibaar daañu ko du dénk boromam ci diwaanu Fatick lay amee ci ville bi nga xamante ni bi rek fa la juddoo moom moomule di Pape Ibrahima Ndiaye ñu wax ne rek moo nekkoon kon sous bu Clore ci diwaanu Tambacounda ñu àddu jëm ci beneen xibaar boo xamante ne bi ñeel na gendarmerie bu Diogo nekk ci département bu Tivaouane ñu teg loxo ci ay sàcc yoo xamante ne bi sàccug njur dong moo leen yitteloon mu nekk nag lu neex askan woowu li nga xamante ne bi rek ñooy dundee ca Diogo ak ca Fass Boy ndaxte yàgg na lool ñuy nemmeeku ay sàccum njur yoo xamante ne bi rek daf leen tere woon nelaw toll na ci fukk ak ñaar ci sàcc yoo xamante ne bi rek teg nañu leen loxo li ko waral nag muy coup file boo xamante ne bi rek amal nañu ko ab opération de sécurisation xamante ne rek ñoom ñooñu leen di takk der yi amaloon nañu ko lu toll ci ñaar fukki nag yoo xamante ne bi sàcc nañu ko fukk ak juróom-ñeent ñoo xamante ne bi tam jot nañ leen euh, euh, gis maanaam retrouver nañu leen ñoom takk der ñoo ko amal ñoom takk der yooyee sax jot nañoo amal ay doxantu ca Ngaay Mexe ca Pekes piir Mboro Jogo ak yeneen gox yoo xamante ne bi rek ñu ngi ca wet ga fukk ak ñaar ñooñu nga xamante ne bi rek ay sàcc lañu te ñu teg leen loxo dañu leen defeere ci la dul yàgg dara